asalaamaaleykum mbokk yi déglu dal leen ak jàmm tey li ay di jàmbat ci biir ëtulekaay yi moom mooy inauguration wu train express régional bi nga xam ne démb njiitu réewum Sénégal di Macky Sall moom moo ko doon daloo ëtulekaay bii di Sud Quotidien di ñu xamal ne TER bi ñu doon xaar yegsi na fu mu nekk nag teg nañu ko ci raay yi sénégalais yi mën nañ ci dugg di dem ak dikk nu leen neexee te ci diirub fukki fan ak juróom duñ ci fay benn dërëm ëtulekaay bii di Sud Quotidien di ñu xamal ne kon démb njiitu réewum Sénégal di Macky bi nga xam ne moom moom la doon di ne xam ne ne bokk na ci projet yu bëri yi nga xam ne ma ngi ko jagleel réewum Sénégal lii ab tàmbali rek la li ci kanam raw li gët njiitu réew bi daal di ci yokk di xamle ne ak train express régional bi mën nañu jàpp ne dina am yeneen projet yoo xam ne day gën a jëmale réew mi kanam yoo xam ne moom dina ko fi tekk fii ci biir Sénégal loolu sax moom moo tax ma ma ngay soññ ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci biir gouvernement bi ngir ñuy utiliser train express régional ma ngay soñ askanu réewum Sénégal ngir ñu fexe ba moomoo li nga ne de moom mooy terre boobu ndaxte ñoom la ko jagleel train express régional bi mooy ñaareelu yoon bi nga xam ne ñu ngi koy inauguré autolikaay bi de la témoin moom moo ñu koy xamal ñu wax ni ko njëkk a inauguré démb ñu daal di koy inauguré waat mooy ne train bi teg nañ ko ci raay wi daal dinay daw mu nekk ni moom daw bi dootul dakkati autolikaay bi di Dakar Times ne train bi fa mu yegsee sax foofoo baax ndaxte nag askanu réewum Sénégal soxla woon nañu ko ak jafe-jafe yu tar yi nga xam ne dañu koy ngay jànkonteel ci wàllu dem ak dikk bi am express régional boo xam ne dina la jëlee fii ci biir Dakar yóbbu la ba fa li nga xam ne moom mooy ca Tëngéej ci xef ak xippi loolu moom nekk na loo xam ne askan bi ñu ngi ko doon xaar loolu moo tax ba colikaay bi di l'info ne njiitu réewum Sénégal di Macky Sall léegi moom ñu bañ ko wala ñu nangu ko dugg na ci biir histoire maanaam daal dinañu ko boole ci njiitu réew yi nga xam ne def nañ fi loo xam ne daal askan wi yëpp ñi ngi ci wax gongo loolu colikaay bi di l'exclusif la mu ca gémmiñ ñi doon wax ne train bi du daw ñooñu ñëpp kon daal di nay tëj seen i gémmiñ le soleil du ñu xamal ne phase de bu train express régional dinañu ko amalee ci nu mu gën a gaawee ndaxte dina jógee ca Diamniadio dem ba fa li nga xam ne moom mooy ca aéroport international Blaise Diagne te loolu moom ñaari banque daal di dañ ciy dugal seen koppar ngir mu war a mën a nekk dinañu yokk tamit train bi ngir dem ak dikk bi gën a yomb ñu daal di jukki ak jullikaay bi di tribune ci atum 2021 gi waaj jeex lan lañ ci gën nemmeeku woo ci likaay bii di tribune ne dund cher ñàkkum ndox gu tar yenn ci ay kërub liggéeykaay yoo xam ne dañoo nermeliw ak tamit ay grève yu dul jeex autolikaay bii di tribune ñaatum 2021 kay askanu réewum Sénégal duñ ko gaaw fàtte le mandat daal di ci yokk di xamle ne lu weesu loolu gis nañu nag ne ci atum 2021 amoon na xeexoo yu métti ginnaaw ba ñu daal di convoqué ki nga xam ne de moom mooy Ousmane Sonko ñu ne déet ni waay ñu daal di gis ne ci wàllu nemmeeku loo xam ne day tilimal deru réewum Sénégal ñu ne deet ni waay mu am tamit ay détournement ak i luubal yu dul jeex yuñ ci nemmeeku euh, ci biir ay kërub liggéeykaay yu nguur gi moom tey jii ci ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru décembre ñoo ngay fàttaliku Serigne Saliou Mbacké tey ji mooy fukk ak ñeenti at ginnaaw ba mu daal di dëddoo àddina moom mi nekkoon juróomelee li xalif bu Bamba tey jii colikaay euh, bii di direct news di ñëwaat ci jaar-jaaram pas-pas la ci jëfee jëmale ko ci yàlla jeexale ko ko julikaay bi di libération ma ngay ñëw ci ñaari nit yoo xam ne teg nañu leen loxo ñu doon def naka su dul noonu kenn ka ma nga dëkk ca Medina Gunaas moom da doon wax ne yee yaay ab sëriñ la ci noonu la doon benn xale bu góor bu am ci lu tolloog fukki at ak juróom ñaar sama jëntal ga commissariat bu Géejawaay ñoom ñoo ko daal di teg loxo kii di Lamine Faye moom jàpp nañu ko ca Zac Mbao moom it da doon def naka su dul noonu ci ay xale yu ndaw yoo xam ne daal daf leen doon sàkku ci ay chantier chantier ndax moom maçon la chantier yi nga xam ne daal lañ ko doon dénk ci bërëb yi nga xam ne fa la daan dem ca Zac Mbao foofu la daan xëcc ay xale di leen sàkku ñoom ñaar ñooñu ñëpp euh, caabi féete na leen gannaaw lii moo nekkoon bordilukat li gën a fas ci biir autolikaay ñu leen di ñaanal njeextilu bés ak jàmm mesdames et messieurs bonjour inauguration du train express régional aujourd'hui les quotidiens en font leur chou gras et nos confrères du journal Sud Quotidien nationale satisfait de sa réalisation qui a pris la parole lors de l'inauguration et c'est pour dire que la date d'inauguration du train express régional marque une étape historique dans la marche collective vers le Sénégal émergent. Une aube nouvelle se lève sur notre cher pays, ajoutera le chef de l'État Macky Sall. Il rappelle en outre, toujours dans le journal Sud Quotidien, que le TER n'est qu'une partie de la marche vers des projets d'infrastructures d'envergure projet se trouve dans l'axe 1 du plan Sénégal émergent dédié à la transformation structurelle de l'économie nationale. Ensuite, nous disent nos confrères du journal Sud Quotidien, le chef de l'État Macky Sall a engagé son gouvernement à utiliser le terre et il a aussi euh, promis de prendre en charge convenablement euh, les doléances des impactés du projet et de veiller à la bonne exploitation du bijou. Le terre roule enfin, c'est d'ailleurs le titre qui barre la une que deux ans après l'avoir inauguré en janvier 2019, le président de la République a encore officiellement inauguré hier le train express régional. Mais cette fois-ci, c'est la bonne avec un train qui roule, qui siffle et qui entre finalement en gare. Donc c'est un train qui arrive à l'heure selon nos confrères du journal Dakar car selon ces derniers, les populations de la banlieue en ont besoin. Et hier, le lancement du TER sonne comme un démenti aux sceptiques verrait jamais le jour. Reste maintenant à relever le défi de la gestion, de la sécurité et de l'entretien. Donc, retenons avec nos confrères du journal l'info que le chef de l'État, Macky hier au lancement du TER est entré dans l'histoire et d'autres projets vont suivre, nous disent nos confrères du quotidien Le Soleil, qui nous parle notamment de la phase 2, Diamniadio AIBD. La BID annonce milliards de francs CFA et la BAD de milliards de francs prévu pour rallier l'AIBD. Nos confrères du journal L'exclusif d'ajouter qu'hier, avec cette inauguration réussie du train express régional, le chef de l'État Macky a enterré ses détracteurs. Faisons à présent la rétrospective de l'année 2021 avec nos confrères du journal Tribune qui nous indique que cette année peut être considérée comme une année de souffrance et de galère. Nos confrères nous parlent de cette vie qui est devenue plus chère, de ces pénuries 2021, une année de souffrance et qui restera gravée dans la mémoire des Sénégalais. Dans le journal Le Monde, nos confrères nous font aussi la rétrospective de ces mots qui ont marqué l'année En effet, durant 12 mois, les Sénégalais ont connu des événements douloureux. Pendant une année, la souffrance a été la chose la mieux partagée par l'écrasante majorité de la population qui a subi les mesures restrictives de la pandémie de Covid-19. Alors que

marié à deux épouses, avait été placé en garde à vue au commissariat de Guédiawaye après une première audition. Quant à Lamine Faye qui a été arrêté à Zac c'est un maçon âgé de 35 ans, il est visé pour pédophilie, détournement de mineurs et actes contre nature. Considéré comme un ami des enfants, Lamine Faye a violé au moins six garçons dans les différents chantiers qui lui étaient confiés à Zac Mbao et c'est une victime pressée de questions par à Mèche avant que la police ne soit saisie de l'affaire. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.